asalaamaaleykum euh, sëriñ Ismaïla Sow. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu di nuyu waa Dakar Actu yëpp euh, di nuyu tuule les sénégalais ak euh, ñi nekk bitim réew di seetaan. waaw ñuy fàttali ni Ismaïla saw moom moo nekk président du conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal muy euh, kuréel gu nga xam ni dafay taxawu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllum sàmm gi nga xam ne moo am fii ci Sénégal Serigne Ismaïla Sow euh, ñàkkul ni fa yi dégg nga coow li nga xam ne am na Mali euh, muy coup d'état bu fa am loolu nag boo gisee ñu la ci laaj dafa am lu nga xam ni dogal la jip ci ñi nga xam ñoy wa yore wàllum sam gi fofu ca mali néna ñom dañuy téy lepp li nga xam ni jëm na ci li nga xam moy nak wala xar wala sax yap bo xam ni doon nañ ko indi ci réew yi nga xam moy yu sénégal ak réew yu CEDEAO loolu nag li tax moy euh, dañ leena embargo ginnaw coup d'état bobu yow information bobu nan nga ko jangaté waaw euh, merci abdou ni ma ko jangaté rek moy nekkul lo xam ne li luñu gënal la parce que mun naa wax ne éleveurs yi yëpp benn famille lañu Mali Mauritanie Guinée Bissau Guinée Conakry ak tout l' Afrique dégg nga même Europe monde entier benn lañu kon lépp loo xam ne lii dafay indi rupture nekkul loo xam ne lii lu gën la parce que loolu dafay yàq. Euh, Amical ak euh, bonne relation bo xam bi dafa ci yi mais aussi producteurs comme les les éleveurs mais aussi dafa ñuy jangal parce que xam nga Mali dafa bokk ci réew yi nga ay producteurs Mali Burkina Faso ak ay Niger bon le réew consommateur yi nga des consommateurs du côté produits animaux au sénégal et ak côte d'ivoire nous avons euh, xam nga ñu aussi ak euh, mauritanie té bo gissé c'est une population c'est environ de 4 millions 400 000 bon presque 2 euh, millions de manké mais nous avons mom plus de 11 millions de ak jurgu sew gi millions yu bari kon euh, loolu aussi tamit euh, yaakaar naa su fekkente ne pour nag mais nag boobu mun naa bañ a réussir mais li ci gën a rek mooy que ñaanuñu yàlla loolu mu nekk loo xamante ne li dafay nekk ci diggante réew yi li lu demee nii nag dafa jàngal Sénégal parce que jàngal na Sénégal ci ren corona bi ba mu ñëwee war nañu ci jàngal lu bees loo xam ne lii

ak yi ci euh, jur gu sew mun nañu fekk ba ñun li ñu soxla ci suñu réew bu dee téeméer mun nañu régler téeméer yi sax wala téeméer yi teg. léegi da wax ci sa wax ni euh, xëy na bu am na loo xam ni peut-être buñ ko soxla woon tey ci xar xëy na Mali sax mën nañoo bañ a euh, jublu ci moom Mauritanie rek doy na. loolu yow da ngay euh, wane ni xëy na bu Mali tëjoon tey ci frontière ci wàllum di ñu jox xar ak nag ak yu mel noonu duñu ñun duñu am problème. non mais ñun xar yi fiy ñëw ci tabaski bi li ci ëpp Mauritanie lay jóge dafay duggee Mali wala mu duggee mu jóge Mauritanie dugg Sénégal direct mais lu ci ëpp Mauritanie lay jóge wax naa la ko sànq Mauritanie ci ñun lay jaayee parce ñoom 4 millions 4 euh, euh, millions 400 mille nga am plus de 11 millions kon kooku xam nga ne am nga consommation sa réew bi mu doy. mais euh, sëriñ Sow foofu am na sew-sew est-ce que du tamit Mauritanie li nga xam ne mu ngi koy jaay Sénégal amul lu mu ciy jëlee Mali aussi di ko jaayaat Sénégal. no Mauritanie Mauritanie de ñoom jur dañu ko yore ay surtout ay xar xar dañu koo am Mali gis nga mun naa la jox ñoom ñëpp. ku ci nekk am donné. Mali Mali euh, Mali mu ngi population 19 millions 077 749 000. population nga xam ñu ngi 11 758 377 17 bovins. xar mu am 18 millions 270 000. dégg nga gis nga li mu am ci ay béy mu nekk vingt cinq millions deux cent vingt quatre mille neuf cent quatre vingt dix loolu mooy may et alors nga xool Mourtagne population bi mu ngi ci quatre millions quatre cent euh, trois mille trois cent treize mille loolu mooy population bi nga gis na ñoom seen nag ñu ngi ci un million neuf cent mille cinq cent soixante quatre euh, ñu ngi am onze millions trente cinq mille huit cent soixante

Côte d'Ivoire kon loolu dama ne ginul pour que ñoom ñoo arrêté seen jur ginul nekkul loo xamante ne lii lu gën la parce que même bu dul dara relation amicale bi nekk ci diggante réew yi ak diggante organisation yi dégg nga loolu ginul dégg nga mais nag li ëpp solo mooy que ñu seet ñaar problème yi nga xam ne am na Mali ñu seet problème yooyu population yi ñoo war a organiser wu yu mel noonu mu génn ci suñu réew yi parce que boo amee kan mooy sonn mooy ñun ñi nga xam ne ay néew doole lañu. loolu daf ñuy yóbbu sax xam nga peut-être man maa ngi focaliser wu ci rek xëy na li Mali di indi fii mais yéen aussi ñàkkul ni yéen a ngi doon yóbbu foofu euh, parce que jaayante la rek euh, ban conséquence la loolu nar a am. bon conséquence bi muy am euh, nun bu ñu ci yégee fukk ñoom ñu ci yëg ñaar fukk parce que nun am na lu ñu fi yore nag am na lu ñu fi yore beneen bi aussi am nañu yeneen réew yoo xam ne aussi ñoo ngi takkaloog ñun comme Mauritanie même ay Guinée Bissau ay Gambie xëy na li fay dem du bëri waaye ñoo ñëpp ñu ngi takkaloog ñun te bu fekkee ay matière de nag ak yooyu aussi mun nañu ko jëlee ci réew yooyu ak Guinée Conakry parce que boo seetee Sénégal li jëlee ci Rosso beeg nga jeexal Bakel yëpp Mauritanie la dégg nga xëy na nag ci benn partie bi ci Bakel beeg dugg aussi ci benn parti ci Kédougou bi aussi foofu mooy buntu Mali dégg nga li des aussi Guinée Conakry wala Guinée Bissau koon du ñoom rek lañu amal frontière bon nun am nañu fu bari foo xam ne fii mun nañu fa jëlee ay jur mais dama laa wax ne la loolu li tax mu bon mooy que il faut que nit ñi jël matuwaay yi jël matuwaay yi nag surtout ñun la organisations éleveurs organisations éleveurs yi war nañu cultiver suñu ci suñu même ci suñu population yi ñu jéem aussi ci politique yi nga xam ne koy doxal dans les pays parce que ay baaxul ci les ñu waxtaan ak suñu nit ñi ñu sensibiliser nous parce que problème bu que nous ñu Pour dire sonn. pour jeexal euh, lan préoccupation majeure du Sénégal. Le problème du Sénégal. li ma la mën a wax mooy problème suuf problème suuf parce que gis nga tey suuf si ni ñu koy doxalee ak problème yi nga xam ne defa tricas yi am ci biir suuf si loolu moom moo indil càmm Sénégal problème nit ñi aussi dañuy wax naan nañu si secteur bi aussi ñu fekk ba ñu def ay ferme te ferme boo ko defee nag loolu mooy amal ay nag yu tuuti dégg nga xalaat politique boobu nag bu ñu ko buggee développer aussi dañoo war a jël en compte ay événement yu mel ne tabaski ay événement yu mel ne ay ceet ay ngente ay maara daytaali dëj wala boog ay gàmmu wala ay tamxarit wala ay euh, euh, korité wala ay màggal dégg nga yooyu yëpp defa di activité te nit ñi xam aussi nun ak réew yi nga xam ne bëgg nañu leen a roy réew yooyu bu demee ba ñu am ay événement ñoom du ñu wut ay xar décoré yi parce que boo demee ci réew tubaab yi bu Noël jotee wala wala paak ñoo yow da ngay jël sa pañ nga dem marché jënd yàpp boo demee supermarché da da ngay peese yàpp nu nag fii problème bi li ci ëpp mooy tabaski doo doo peese yàpp euh, booy ngente doo peese yàpp booy seetal doo peese yàpp boo amee dëj doo peese yàpp deng lu ci nek da ngay reey ay nak deng kon lolu aussi bu fekente ne def na def nañu yenen politique yi ci jur gi dana jur problème te problème yoy dé maintenant lañu ko wara jël en compte parce que comme maîtrise wuñu diini gi maîtrise wuñu ne li do len mbulen mbulen mbu leen tabaski mbulen leen mbulen def li bu comme munuñu téré lolu nga xamné lolu au contraire diñ koy encourager bu ñuy tëral politique nañu jëlaale yooyu en compte te yooyu bu ñu koy jël en compte mooy li nga xam ne am nañu ko ci suuf nañu ko organiser dégg nga bu ñu ko xeeb deux mooy euh, deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille kilomètres carrés lu bari la parce que nit ñi lan moo war a yóbbu suuf si mooy mbéy nit ñi béyuñu dégg yu ngay gis ñuy def nii yëpp dañu koy mbubboo di wax damay def ay tool defuñu tool dañuy wut soo suuf di ko morcelé dégg nga di ko légaliser di wut ay papier di ko jaay te loolu su continuer yow dangay ngay sa njaboot nga may rey man parce que am yow boo amee suuf tey nga am ay hectares yu bari nga fekk ba am sa baay ak sa titre foncier loolu sa njaboot moo ko moom ëllëg boo fi nekkatul keneen ki nga xam ne nag amul capacité def loolu kooku moom dafay dee donc loolu moo tax politique foncière bi fokk ñu xool ko ah euh, euh, nun nag problème bi aussi li indi le gouvernement yi problème mooy que ñi ñëw ñëpp bi Abdoulaye Wade dafa hérité woon problème boo xam ne bii ci ci ñi ko woon la jële woon problème boobu mu ñëw moom it mu sàggan ba problème boobu gën a rëy kii tey nguur gi nag mu hérité problème boobu mu gën a nekkaat lu sérieux même am na yoo xam ni tey suñu ko buggee def dafay compliqué tey pour ñu redresser ko te ñoom xam nañu ne du dëgg du yoon waaye pour nga redresser ko aussi ay jafe-jafe ngay am waaye problème suuf si waaw kon xam naa dañuy yemale fii waxtaan bi rek ba beneen yoon sëñ Ismaïla di la jaajëfal. merci Abdou maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm Dakar ak tout vraiment di leen remercier bu baax a baax a baax.